ko seen ay militants yi nga xamante ni si ñoo leen jox parrainage. Mhm. tey jii boo xoolee parti politique yi nga xamante ni si jàpp na ne parti yu mag lañu dañu am mbooloo dañu am candidat yoo xamante ni si mën nañ ñi euh, ay ay favori lañ ci élection yi donte am nañ parrainage des députés. ah Alassane parrainage des am nañ parrainage bu leen permetre ñu euh. jàll bu dul parrainage des électeurs. Ah. dañu dem wuti parrainage des électeurs. pour que ñu mun a sécuriser seen bopp. et en cette période de négociation yi nga xamante ni si day am am na candidat yoo xamante ni si ils n'ont pas ils n'avaient pas de réserve uh-huh. ils ont parlé comme ça dañuy dem ci yenn parti xool nu leen di jàppale y a des négociations yoo xamante ni mooy permettre yenn candidat yi uh-huh. daal di jàll parrainage uh-huh. parce que ñi nga xamante ne am nañu ay parrains yu ñu sécuriser yoo xam ne seen ay militants la ba pare doon doon parrainage des électeurs mais bëgg nañ am ay alliance yu dëgër ci kanam tuuti Mm-hmm. am nañ taxawaay boo xamante ni moom la ñuy xaar parce que am na organisation yu jiitu woon ci wàllu politique ci ginnaaw. Mm-hmm. yi laataa élection yi di ñëw laataa parrainage bi. organisation yooyu tas na. Mm-hmm. am na waxante lu ñaaw yàq nañ les plage de réconciliation yi nga xam ne waroon nañ ko am donte en politique il ne faut jamais dire jamais. tey jii nii ci fii ñu toll euh, nga xamante ni mooy seen ay objectif bi ñu fi yegsee nekk ci ay jafe-jafe yeneen parti yi nga xamante ni si ay tête de pont lañ yu am doole. Mhm. mais ba pare am parrainage des électeurs teeku seen loxo. Mhm. day am ñoo xamante ni si neneen nu ñuy taxawee pour pour permettre ñeneen ñu mën a jàll pour que ñu mun a am ay alliance ci seen biir ndax xam nañ ni y a certains y a certains candidats yoo xam ni ils vont passer. Mhm. mais xam nañu boo leen laajee ci seen intime conviction dañ naan la nous allons en compétition électorale. pour avoir euh, de l'expérience mais du ñu dem pour ni dañuy jël le pouvoir donte loolu moom mooy nekk seen slogan mais ils vont participer pour avoir de l'expérience et ci dem boobu noonu ñuy dem daf leen di permettre après élection présidentielle et élection législative yi mu mën a am terrain boo xam ne miin nañ ko ba mën a am représentativité à l'Assemblée nationale ah. mais ci biir jeu électoral bi dafa am rôle bu am solo boo xam ne dinañ ko ci jouer pour être un bon faiseur de loi bu dee a des second te yaakaar naa ni dana ca am leneen li mooy euh, nit waru waruñu taxaw au Sénégal ngay gis nit doon candidat keneen doon candidat kii jàll nga ni kii dafa jàll kon keneen kii dafa waroon a jàll ndax kii moo ko gënoon a présent mm-hmm. wutum parrainage ak ñu parrainé la dafa am lu koy joxe dafa am ñoo xam ne dañ lay wóolu ba pare doog la jox seen parrainage am ñoo xamante ni si ay points focaux la dañuy liggéey ci wàll boobu. Mm-hmm. parce que gis nga ñu bari bi ñu leen di bi ñu leen di euh, recalé. mais loolu aussi nag saa ça euh, ça ne peut ne pas nous interpeller ah. bien euh, ñu gis. koo xamante ne nii ay la mën nañ ne mën nañ ko boole ci mastodonte politique yi mu bañ a jàll parrainage gis un novice bu nga xam ne barki démb la dugg ci xëy na wàllu politique bëgg a dem président am parrainage loolu waxuma la mënul nekk de kenn mënul wax ne mënul nekk mais daf ñuy interpeller <laughs> dañuy indi loolu dañuy interpellé par exemple ci lu ndaw mm-hmm. ci lu ndaw rek mm-hmm. Idrissa Seck mm-hmm. et Déthié Fall Déthié Diallo Idrissa dem daal di wuti ji waat ngir mën a jàll <laughs> ci koo xam ni yaa formé kii bi mu génnee ci yow yàggul te yaa jëloon deuxième ci élection yaa ci présidentielle bi moom mi mën a jàll yow mi mënoo nga dem war a dolli ji waat sauf que da natt Déthié kañ la fa génn ak présence bi mu am sur le plan politique li mu gagné aussi ci wàllu expérience. mais tamit est-ce que du mbir bu ci am am na mbir bu mooy Déthié Fall a été le seul bu dem ba yegg cent vingt cinq mille. ne pare na waaw. au moment où defaguñu tirage xamaguñu ñaata euh, dépôt moo nar a am ak moom ban position la ci war a am. ndax du moo njëkk ne pare na. Ah. xam nga lu waral loolu. parce que c'est un homme méthodique. il n'est pas dans le bavardage. malgré treizième xaw douzième position bi am ci fait partie des candidats les moins ak lim am naa cent et quelques. ma wax la Déthié Fall. xool ko comparé aux autres candidats yu occupé les cinq les cinq les cinq dernières années la mm. ci seen taxawaayu politique il fait partie des moins bavards ku néew ay wax la ku rëy ay jëf c'est grâce à lui. que la coalition Yewwi Askan Wi a pu réaliser l'intercoalition ba tax ñu am 82 députés. Mmh. et il est moins bavard donte am na quoi sur la liste titulaire bi nga xamante ni si moom moo yàqu ci biir ci ci ci législative yi. tax ñu bari jàll. nit dafa am quand tu veux être quand tu aspires à diriger pays. loo mënt di taxaw di occuper la façade di teew da war a teew sur le terrain. teew sur le terrain du yow yaa fay ne. loolu mooy waral ñu naan on peut gouverner de loin mais on administre que de près da am ay points focaux ak ay nit yoo xamante ni si ñooy liggéey ci wàll boobu certaines personnes donnent des chiffres à travers des discours. wala ay facilitateurs. mais da ngay gis ñu wax xam nga Bougane vous l'avez <laughs> eh. dafa jël ay imprimantes joxe ko. Eh. wut ay facilitateurs teg leen. 2700 <laughs> jël ay oto jox leen. Hmm. dem bi mu demee du dañ ko recalé. Hmm. mu war a dem daal di compléter son dossier pour jàll. Hmm. il waaye tey jii il a des difficultés pour passer. Hmm. cela veut dire que yëf yi dafa am taxawaay bu interne bu technique boo xamante ni moom ngay jëttee ko sa loxo. Ali Nguy Yaay il était très technique parce que moo expérimenté le parrainage dañ ko yóbbu mu dolli gi parce que dafa am teewaay boo xam ni sur le terrain il na l'a pas du tout le discours et très différent de la présence sur le terrain. mais sauf mais dafa am ñoo xam ne bi ñun ñi di est-ce que mën nañ ko natt ci diggante discours ak présence sur le terrain. mais am na ñoo xamante ne nii barki démb. bañ ne candidat la matul ñetti weer te danoo jàll d'office. mais ki nekk ci wàllu politique bi depuis combien de temps. da nga xam ni présence sur le terrain comme ni nga koy waxee. moom mu war a dolli ji. wala sax ñu éliminer la rek Saalum mais loolu. gaw ma ne mën nañ ko natt foofu quoi daanaka ñu dem ci. Ablaye Mbow. ndax naan candidat la am na am na lu mu téye. am na lu mu téye ci loxo. ba tax mu ni candidat waaw ah, loolu nag moo ma tax xam. lan lan la gaa yi ak lan la gaa yor. lu jiitu nga naan candidat ah. di nga dugg fi nga war a dugg. di nga wax ak ñi nga war a waxal di nga dem ba am cëslaay lu dëgër ci li nga jëm ca nattukaay nga doo ko taxaw ni candidat nga. Ah. am na ñoo xamante ni si nag ils ont fait leur présence un peu partout. à travers leur discours mais n'ont pas su être réel réalisme dafa am ci doxalinu politique bi rawatina. li nga xam ne mooy yi nga xam ne duñu koo tëral. très ni lii ngay def. lii ngay def lii ngay def mais Saliou mën nga justifier loolu ba grand parti yi dem di dem ci parrainage des élus ñoom lu tax demuñu parrainage citoyen. moo jaaxal ñëpp liggéey rek xam nga xam nga lu tax duñ ci dem. PDS APR duñ ci dem dafa am liggéey au préalable. dañu liggéey lu leen may ay élus ba tax ñu am ko mën a jàll. Ah. waaw mais est-ce que équité am na foofu ci dialogue mais ci dialogue bi la génne raison de plus bi nga xamante ni si ñoom dem nañu ba am outil yooyu noonu tee ko seen loxo wuti ji nañ présence ba am ay élus bi ñu wootee waxtaan dañu dem waxtaanee ñu ko. am na ñoo xamante ne dañu toog ne waxtaanee ñu wuñu. ba pare wutuñu outil yooyu noonu. d'accord Sall ba pare ñëw nag taxaw daal di ñëw à l'absence de toute méthode. à travers qu'à leur discours. Hmm. et leur combat leur discours de va et leur combat. c'est ça ils c'est avec des méthodes parle les Fatou. ces grands leaders dont parle les Fatou. Hmm. Hmm. c'est pour éviter tout risque. tout ah, waaw kay man de loolu laa gëm. c'est pour <laughs> ah, parce que a des voilà non parce que. Mm-hmm. Euh, bi ñu yëgee ni président Macky Sall dafa ne du ñu dem ci parrainage citoyen bi. Mm-hmm. dañuy dem par le parrainage des élus. ñu ne Benno am na. 4000 ah. am na njëgu njëgu 120 maires. am na njëgu 13 députés. Mm-hmm. ñoom ñu opté pour 120 maires. mais du ñu jël risque. d'aller vers le parrainage citoyen parce que xam nañu risque yi ci nekk. Mm. risque yi si nekk moo tax Khalifa Sall demul. Mm-hmm. risque si nekk moo tax euh, euh, Habib si ñu. su pare kon boobu loolu bon ban parrainage la kon. waaw mais xamul tax. Ah, xam nga lan moo lan mooy <laughs> xam nga. parrainage boo xam ne yow mi ko fi institué sax. ñëwoo cee dem parce que parce que yow. kon a un problème parce que l' avenir du sus l' avenir malheureusement du sus Sénégal actuellement est suspendu à un tirage au sort. Ah j'ai dit l'avenir du Sénégal est suspendu en tirage au sort parce que mbir mi PMU la mhm. te mbirum élection ak mbirum jiitum réew dama ne du PMU mhm. dëgg la naam rëq-rëq yu amoon moo tax ñu trouvé lii mais dama ne waroon nañu parfaire système bi ba nga xam ne day faatu daañu ne te du ñu jël naan ki mooy njëkk a jàll ki mooy deuxième ki mooy vingt sixième ki mooy trente cinquième si tirage au sort imagine toi tirage au sort nga éliminer si koo xam ne convaincre na Ndeye Fatou mm-hmm. si profil ah, convaincre na Ndeye Fatou si expérience convaincre na Ndeye Fatou si programme mm-hmm. Ndeye Fatou dem ba convaincre ñeneen si kooku mm-hmm. kooku nag par le tirage au sort tirage au sort ko éliminer